nuyu len boki mbokk yi juróom-benn waxtu jot na ba fukki simili ak juróom ci mbudaay séeréel ndangan ak coof ak di dëkk yu nekk fii ci bu Kaolack mbokk yi dal leen jàmm ci xibaar yi bokk na nag ci ponk yi ci gën ndaje moo xam nak jëm ci walum procès bi dox ci diggante Omar Sall ak it Tidiane yi def nañ ko daal di amal ni ki tey nak nag waral ñu daxandikoo ba juróom-ñetti fan ci weerub décembre bi di ñëw kenn ci ñoom bokk ci collectif bi àdduna jëmale ko ci lu ni mel wax leneen ba tey ci li gën a ci xibaar yi ki di Ayib Daffé di mandataire bu Ousmane Sonko moom moomee nag daal dina yóbbu rek ab caution am ni ki démb bu lépp caution nag ñu delloo ko ko ane lan moo waral lu ni mel Matar Diop di chargé de com bi daal dina ci andi ay leeral ci biir xibaar sax def nañ ci gën a dugg jigéen ñi nekk fii ci diwaan bu Kaolack bokk ca foyer Kaas euh, ba daal dina nu mer ba futtu waral rek ab jàkkaarloog taskatu xibaar yi ñoom ñëpp takk ay morso yu xonk joxoñ baaraamu tuuma euh, ki nga xam ni moom mooy ndaje réew nekk fii ci diwaan bu Kaolack di des nañ leen dégtal li jublu ci wàllum xibaaru tàggat yaram soxna maam Fatim Mbacke Mbaye lañ ci àndal xibaaru bitim réew yi soxna suna sumaare faram fàcce bi léegi léegi lay doon. ko waxee ci bopp xibaar yi procès bi eh, dal di dox ci diggante ki di Omar Sall ak Tidiane yi dal dinañu ko amal niki tey lu ni mel nag waral ñu daxandiko ba juróom-ñetti fan ci weerub eh, décembre kenn eh, ci membre yi bokk ci collectif bi di wuyo ci turub Amsatou Nia dal dina andi ay leeral lancé it appel ñi nga xam ne ñooy Tidiane yi ci mbir mi ñu teewlu ko ci micro bu Kaolack TV. procès bi nga xam ni moo doxoon ak ki ñuy wax Omar Sall. ñëw na nit ñi war a ñëwee ci dossier boo xam ne si mi ngi ci kanamu yoon Nous, nous sommes toujours respectueux des lois et institutions de ce pays moo tax du ñu euh, def lu nous bàyyi yoon bi nga xam ne si def liggéeyam mu def ni mu procès bi yàlla def nañ dañ ko renvoyer jusqu'au 10 décembre un procès grand renvoyé jusqu'au 10 décembre ça veut dire que jusqu'à présent au 8 décembre fa le toll woon fa lañ tolluwaat le temps que avocat yi mën jël dossier bi mën ko jàmbar li wax rek moy njabooti hadra bi yëpp bàyyiwuñ kenn mobilisation am solo alors à partir du moment où euh, procès public la na len jaral dara ñew tew ci yar ci dal mais surtout ci respect ak jox ter de jox yoonu tontu provocation buñu tontu kaddu la euh, yoon dinañ ko apprécier luñu ñu yoon jox dinañ ko apprécier pour xam nan lañ ciy tor taxawé inshallah taala. duggaguñ sax ci fond wu dossier bi parce que dafa am avocat yo xam dañoo constituer wu bees avocat bu constituer wu dossier bi faaw mu xol li ci nak lool rek la donc duggaguñ ci plaidoirie ku xam na leen jaaxal waaye alhamdulilahi rabbil alamin jarul ciow jarul wax lepp ci jam dañoo togn ñu ñew pour tout simplement wax ni kiñu togn na arrêté diñu togn dañuy wo pour ñep ñew teew xam ni muy doxee xam lim ñu jaral ak ñi ñu ko sëqal te ku matul nawle nak waru la mat noonu ba tey ñu wax ci li jëm ci wàllum euh, politique bi la yoon député bi di wuyoo ci troupe euh, Ayib Daffé nekk it mandataire bu candidat Ousmane Sonko daal dina rek dugal ni ki li di caution am lu ni mel nag ñu daal di ko delloo chèque bi defoon boobu lépp euh, caution bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ni moo yor lépp lu jëm ci kàddu waa kes de dépôt ak consignation Matar Diop andi na ci ni mu gën a yaatoo leeral yi waral ñu delloo ko. sànq Euh, dafa ñëw mu indi déposer caution euh, candidat Ousmane Sonko bi mu ñëwee duga indi na chèque bi na mooy mandataire candidat Ousmane Sonko bi mu demee suñu service yi dañu vérifier ndax euh, Ousmane Sonko mën na déposer wala déet bi ñu xoolee la liste des personnes ñi nga xam ne ñoom la ñu autorisé ñu jël parrainage gisuñu si trop Ousmane Sonko loolu moo tax ñu oo suñu huissier na ko delloowaatal monsieur Ayib Daffé chèque Ousmane Sonko euh, chèque bi mu déposé euh, notifié ko Ousmane Sonko kat pour le moment mënul déposer caution à la caisse de dépôt et consignation loolu moo tax joxuñu ko attestation quittance de dépôt lañ ko joxoon donc bi vérifier. Euh, la procédure mooy bëgguñu ku ñëw déposer xaalis dana jox benn quittance maintenant l'attestation définitive bu vérifier vérifié lañ la koy jox mais bi vérifier, donc ñu xam ne kii waru mën déposer moo tax ñu décidé delloo ko.

Nous ñu vérifié ñu beaucoup de liste donc jël jigéen ñi nekk ca kaas ba foyer fii ci diwaan bu Kaolack daal di nañu rek mer ba futt waral ni ki démb ñu jàkkaarloog taskatu xibaar yi ko ci gis mu takk ay morso yu xonk lu waral seen mer googee nag du lenn lu dul joxoñ gi nga xam ne joxoñ dañ ko baaraamu tuuma ki di nday juree bokk moomeel bi di sëriñ bu jàpp ni nag dafa rek bëgg a teg loxo ci seen case boobee ki nga xam ne nag moom mooy njiital boobee case mu ngi wéyoo ci troupe Thiamatal ñu teewlu ay kàddoom ci micro bu Fallou la. suñ daje tey bii moom doxu ñaxtu la ndax gis ngeen ni ñu xonqee gis ngeen jigéen ñi ni ñu xonqee kenn ku ne takk nga sa brassard bu xonq mbaa sa musóor bu xonq li ko waral mooy Serigne Mboup le maire de la ville de Kaolack moo ne dafa bëgg a jël kaas bii dañ ne woon sax au départ def ko centre commercial ba yàgg ñu ne def ko banque communale des femmes dama leen di bëgg a leeralal tuuti rek ndax man bi ñuy joxe kaas bi boobu maa ngi liggéey ci mairi Kaolack bi cas bi président Ablaye Diack bobu nekkagul maire bobu président conseil municipal mo am bobu maire faloogul Ablaye Diack nek président conseil municipal ñu dem Dakar ñu ne ñu dem len ngeen outil souf ñu ñew Ablaye Diack dagg terrain bi da ko délibérer nak au conseil municipal ndax maire do maye dara lo xam ne conseil municipal yeguñu ko mu joxé terrain bi mu ñuko joxé wa waa PDRH ñoo ministère de la femme ñoñu ñoo tabax kaas bi

dañuy descendi ba tay ak euh, fofé ci wa case ba foyer bi la nak dañ ci and ak njital euh, femme riro yi nga xamné ño nek fi ci diwan bi moom moomee nag di wé ci troupe euh, njuk mbay dal dina rek addu andé léral ci mbir momé soo fété coono bi ñu ñu tek ki ñu ko tek yalla nako yalla yàlla denk lañ ko yalla parce que ñun ay jigen lañ ay femme de développement xamuñ lu liggéey xamuñ lu dul daan suñu doolé ñu tok suñu case foyer bii 1980 la judd boobaak léegi am na ñu fi mag ci yéen. moom yàgg naa xool case bi nga bañ ko falee rek fii la ñëw mais dañ koy won ni ko case bi mairie moomu ko suuf si la moom ndax dégg nañ koy tey ñooy bâtiment bi mairie ko tabax déedéet comme ni ko Thiama wax PDRS moo ko tabax ñu jox ñu laaj apport ñu jox ñu ko ñu nekk suñu case di liggéey mais moom bu fekkee dafa am lu mu bëgg nee na day jël case bi def ko centre commercial. parce que maa ko déglu conseil municipal ñu yónnee ñu ko mu ne day jël diggante CNCA ba police municipale centre commercial la koy def te centre commercial baa ngi nii kon moom bëggul centre commercial euh, alalu moomoolu boppam la bëgg te loolu mënta ne ñu di ko wax ni ko jàmm moo gën ay te ayu jigéen ak ayu ndaw moo fi gën a bon te dañoo am suñu njaboot nee nañ màgget la groupement féminin dafa am ay mag am ay ndaw ñun ay ndaw ay mag lañ mais ndaw yi suñu doom ñi ngi ci te ñoom ñoo ñuy jàppale ñu di leen jàppale ñu ko yëgal nag ni ko ku jóg mu toppale ak ay xaj ñun duñu xaj duñu yor xaj nañu may jàmm président nag bu bëggee jàmm na woo sëriñ buub mu wax moom cœur de ville bii sedef ba fa nekk ñun jigéen ñi ñoo ko moom sëriñ buub jël na sedef bi def ko moomeelu boppam ba ñu jël beneen sedef di ko tabax sëñ sëñ waa Serigne Mboup qu'est-ce qu'il dafa bëgg a jël suufu Kaolack yëpp mënta ne case bi nag dana ko ba mënuñu ñàkk le foyer de la femme ndax foyer de la femme moog bii ñoo juddoondoo case bii bañ demee ba jëmmi jamono ñu koy tabax mënul yegg Khalifa Niass def ko loka bàyyi def ko bàyyi luwee ko alay abut bàyyi bi jeex na Kër Reville bàyyi bi jeex na président na wax ci loolu lii du bàyyi kenn luyeewuñu ko dañ ñu ko moom def délibération du conseil municipal. nee na dañ ko daane. dinañu fi fekk bu boobaa fi bàmmeel lay doon mu daane ko ci suñu biir suul ñu fi. niki démb mouvement bi ñu duppee bay sunu waar ci njiital Zeyda Roxee Ñas daal di nañu rek gën fësal seen wàllum social bi la yoon nag ci daje gi ñu amal niki démb dañoo jublu rek ci wàllum politique jël bopp jox ko kii di Pape bi tey Babacar Mbaye moo fa nekkoon sunu ndaw moo ñu teewlul ay kàddu yu soxna Zeyda Roxee Ñas mouvement Bessinois moom ñaari tànk la taxawee benn bi social la beneen bi politique la ñun nag social moo ñu gën a intéressé ndax ku dégg social mooy dimbale sa askan. ndax képp koo xamante ni kilifa rek ne ko wóor na yow fépp foo mën ci toog bi nga toog rek sa askan moo la fa yëkkati moo la fa teg kon nag war nga ko mën a bàyyi xel bu baax a baax moo tax ñun ñuy def tout pour jàppale suñuy askan looloo tax nag. ñu ne nag comme ñun ñun dañuy def social nañ fexe ba nga xamante ni social boobu danañ ko yaatal boole ci politique. mais façon politique bi nga xamante ni moom lañ tànn ñun Bay Sinwaa mooy fexe askan bi gis ci bi ndax askan bi dañoo sonn dañoo sonn te wax dëgg yàlla jot na pour ñu bàyyi leen xel jot na pour ñu toppatoo leen looloo tax nag. ñun waa mouvement Bay Sunu Waar ñu ne nañ fexe wàcc ci askan bi waxtaan ak ñoom ndax ñun yàgg nañ ci liggéey bi tout le temps ñu ngi def ay porte à porte di dem ci askan bi di dem ci mbootaay di waxtaan ak ñoom di sàkku ci ñoom pour ñu ànd bokk liggéey ndax dañoo gis ne Kaolack doomi Kaolack moo ko mën a defar keneen du jógee fa leen ñëw na def ñuy defaral Kaolack dafa jot pour ñu fexee Kaolack nekk Kaolack niveau Kaolack bu bees ba nga xam ne ñu gis ne loolu suñ combat la ñu koy xeex yàlla def ñu gis benn leader boo xamante ni moom tamit wax dëgg yàlla loolu moo ko tax a jug dimbale askan bi moo ko tax a jug muy DG te dañoo ànd moom parce liggéeykat la dañoo ànd ak moom parce que dafa bëgg Kaolack dañoo ànd ak moom parce que dañoo gis ne dafa indi avancement Sénégal man du ma wax Kaolack kese parce que moom li liggéey àddina bi yëpp gis nañu ko. dañ doon xaar pour gis lu ko jar léegi nag gis nañ lu ko jar. dem gi nga xam ni ki di Zeyda Rokhaya dem na ko ci Papa Mademba bi tey jur nag mbégte uh, ci ñi nga xam ni moom mooy directeur bu Sénélec ak ay uh, ñooñam suñu sukkandiku ci du Bakhoum mi nga xam ni moo ko fa teewaloon. tey dafa am soxna soo xam ne ci fu mu bokk ñu mën ko qualifier bu desoon rek ñu ne fan la bokk. ak ñan ñooy kilifam doy na pour dajale mi mais ñu gis mu nekk jigéen boo xam ne ñu ngi koy suivre lu yàgg ci développement di ko suivre ci yëngu-yëngoom di ko suivre ci dimbale doomi aadamam ak dimbale ay néew si doole la politique tey ñu gis mu engagé wu ak mouvement bu yaatu tey ñëw ne tey dama bëgg a lëkkaloo ak Pape Mademba Bitèye mi nga xam ne mooy DG Senelec kooku mooy Zeyda Rokhaya Niass ñu koy gërëm ci choix bi mu def di ko wax ne li amuñ fayam parce que choix bi mu def nii mënoon na ko def fu nekk mais lan moo tax mu tànn dem ba bi tey kon li gars yi di wax ne montre yu nekk ñoo bokk heure femme de développement la tànn na un leader de développement ci biir Saloum Pape Mademba bi tey ñu fàttali ko ba mu ñëwee ci langue politique bi yàggul waaye dañuy fàttali ne lam doon ak la am ak li yàlla def yëpp nit ñi dañ ko ko nangul ci yaram ci tegginam ci respecté doomu aadama def na ko ba dafa indi beneen politique ci politique bu bokkul ak politique bi ñu doon gis te Zeyda wax na ko sànq bu njëkk boo newoon politique nit ñi dañ doon daw waaye léegi dañuy tiitaroo nekk politique ndax li mu ne ci politique mooy politique autrement ci fanweer ak beneen benneelu édition bu foire internationale bu Dakar ñu koy amalee fële ci CICES moo waral wàccaay gi ki di docteur Saliou Keita di DG bu centre international bu commerce extérieur bu euh, Sénégal daal di rek amal ab déguerpissement ak équipe ba mu jëmale ko nag ci woto yi nga xam ne ñu ngi doon gaare ci wàll bi ci fàttali rek lu toll ci ñetti téeméeri junni ci ay doomu aadama des nañu rek visiter boobule foire ñu teewlu kàddu euh, kii di Saliou Keita. sous-préfet Parcelles Assainies de remercier la gendarmerie de la Foire yi nga Tahawai ne ni am pour gonger le CICES e am nañ ko ba nous ji organiser lu melni euh, opération de désencombrement lu nous ñu def parce que dañu seetlu ni ñu bari ay dëkkandoo ay agents du CICES e mais qui yi ñoo xam ay opérateurs économiques la ñoo xam fi lañ jaaxle nga ñëw tégal ñuko fo dem sa yoon té tay dañu wara a xam ne ni CICES dafa nekk ben structure événementielle de l'État ñuy organiser lu melni foire internationale de Dakar té événementiel parking si la bokk. mais bu féké dañuy ñëw ah, nit ñi ñëw jël seen auto jël seen euh, épave lu nekk sànni ñuko fi dem seen yoon là ñun ñoo wara am taxaway bob kon taxaway bi moy nañu mettre d'abord une direction chargée du cadre de ville, opération bi. te ñoom ñëpp yëgal nañ leen ko dem nañ leen seeti waxtaan ak ñoom euh, defal nañ leen ay sommation def nañu communiqué à rajo mais ñu si bari jéemuñu si leen kon tey dañuy ñëw ànd ak autorité bi jël lépp yóbbu fourrière tey nag boo xoolee lu mën ëpp na plus de cent oto yi ay épave la et oto yoo xam ne ni ñoom xam nañ ni mënatuñ leen utiliser kon yooyu yëpp buñ ko fi dindee liñ ci bëgg daal mooy Nous avons plus de 300 000 visiteurs Nous ñëw bu nous aussi dañuy ñëwaale ak nous oto bu ñu ñëwee am pour nous contribuer à la fluidité de la circulation Nous avons bu euh, période foire nous bu ñu bëgg sax di VDN bi dañuy wax embouteillage embouteillage c'est parce que nous leen aussi que si c'est 107 hectares on a que 30 hectares mais li il faut que nous am un bu pour que nit ñi bu nous fi ñëwee ñu yi garer correctement et que circulation bi également mu fluide. bàkk ba danuna na xibaaru bitim rew yi lañuy and ak soxna sunu sumaré ginnaaw bañ leen nuyoo ba noppi daleen ak jàmm ci xibaaru bi ci dañ koy ci bu France étranger yi amee jàngoro di VIH ñoom ñoo ëpp ci ñu amee jàngoro boobu ci lu yees li jëm ci seen faju nag jafe na lool ndax ci immigration waral autorité yi nekkee foofu ni dina voter ab projet de loi foofu ci pencu mi réew bu Italie bi la yoon Sénat italien bi taxawal na ab kuréel gouvernemental jëmale ko ci wàllu immigration bi ndogal boobu nag saytuwaat nañ ko bu baax a baax foofu ci pencu ndaw réew mi dara waralu ko lu dul xool ak seetantal migrant mineur yi nga xamante ne ni dañ leen a beddi si lépp xalé ak xew bu Chine niki àjjuma tey jii ben fan ci wéru décembre autorité yi fa nekkee xamlé nañ ni dañuy teg dañuy def ab installation d'une station de garde-côte fofu ci île bi gëna a yaatu ci Chine dara waralu ko nag surveiller navire yi nga xamante ni ñu ngi ko fofu ci Pékin ba tay ci seen wall ñi saku autorité yi teg ci loxo ci seen région bo li lañ leen indiloon ci xibaaru bi ci réew di leen di jox dig dajé léegi ak jot na tàggat yaram soxna maam Fatim mbay mbokk yi dañ leen jéem ci xibaaru tàggat yaram yi bokk na la ca gën a fës njukkee li askanu làmb fa yéene delloo kii di Gaston Mbengue moom Gaston mu nekk nag ku yàgg dugal loxoom ci làmb ba mën a yegg si tey fii mu daal di toll boobu lépp njukkeel ñu ngi koy amal ñaar fukki fan ak juróom ci weerub décembre bi ñu nekk daat koy jaarale nag ci ay combat yu bari lool te wute bokk na nag ca yi ca gën a fës Serigne Ndiaye 2 mi ca war a jàkkaarloo ak bébé Saloum grand combat ba dana dox rek ci diggante kii di Sokh ak Jackson dañuy daal di waxtaanee élimination coupe d' afrique nation jëm ci wàllum jigéen ñi Sénégal nag daal di nay doxantu ci kaw Égypte gannaaw bi nga xamante ne dañ doon jàkkaarloo fële ca stade Lat jor bu Thiès jëm rek ci match aller bi Sénégal nag daal di nay door Égypte ñeenti bal ci dara match retour bi nag dañu ko amal juróomi fan ci weeru ba décembre bi ñu daal di nekk fële ca diwaanu Paker waaye li wér te wóor mooy ci match aller bi Korkafal ak ñi mu àndal mayuñu dara ñii di pharaon Égypte yi yi dañu daal waxtaanee Ligue Europa ak Marseille mi nga xamante ne ay doomi senegal ñoom ngi fay yëngu moom Marseille nag daal di nay amaat rek ab qualification am si démb ak gannaaw bi nga xamante ni daal di nay gagné matcham bi doom dox ci digganteem ak l'Ajax Amsterdam ci ñeenti bal ci ñett loolu sax daal leen di may ñu daal di jël toogu bu njëkk ba ci seen groupe. CAF Award di ndaje bu ñuy amal ngir rek di ca neexal jour Afrique yi nga xamanteni ni ñoo gën a ci at mi bu ñu sukkandiko nak ci bataaxal bi wa CAF daal di xamlé bu ren bi dañu ko amal fukki fan ak ben ci weeru décembre bi ñu nekk fële ci diwanu pa Maroc doomu Sénégal bi di Sadio Mané nak ci ak fatali bokku na ci jour yi nga xamanteni dañu leen rek daal di nominé mbokk yi ci li sax lañ leen daal di taggo di leen jox dig dajé ba altine inshallah jërëjëf euh, soxna Faty mbay foofee la ñuy jaar yëkkati suñu jotaayu xibaar euh, gannaaw rek bu ñu sante Diène saar bi féetee ci régie bi Babacar mbay ak équipe ci montage bi noonu lañu leen di sant yéen ñi toogoon di topp ak sa safoo Kaolack euh, TV jërë ngeen jëf di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah.